Sénélec société nationale d'électricité bu Sénégal ak 3MD énergie ñoo leen di may seen revue de presse. jàngeen jëf jiitu réew mi àdduna ci élection législative yu ñu génn réew mi quotidien di nettali ay kaddu Bassirou Diomaye fey ci ndajeb conseil des ministres moom ji réew mi di yëgle ci yéene cabinet kon gannaaw élection yi ak li nga xamante ne moom la leen askan wi joxaat ni kolute jot na nag ñu sóobu ci li nga xamante ne moom mooy urgence yi sonj na ci gouvernement bu baax a baax muy lu jëm ci wàllu prise li nga xamante ne moom mooy koomu réew mi ci wàllub social naka noonee xeex li nga xamante ne moom mooy dund gu cher gi yokkute pouvoir d'achat bi nga xamante ne kon njaboot yi ci Sénégal war na leen bu baax a baax ak i yeneen i ponk li moo tax le quotidien gis ni jomaay moom jamono ji ma nga ca urgence ya ndax moom jiitu réew mi sonju na gouvernement am ngir ñu waajal ni mu gën a gaawee li nga xamante ne moom mooy budget atum 2025 mu mel ni yéene kay ma jàmbal jaan bi gis na ni gouvernement bu Sonko moom ay fanam yu mujj la nekk di dund jamono ji jamono ji moom président Bassirou Diomaye Faye ma ci accélérer la cadence bu ñu sukkandeko ci l'info ndax gannaaw ndam lu yaa li ñu am ci élection législative yi mu mel ni moom jiitu réew mi bëgg na yëf yi gën a bar waaye nañu jàpp ni loolee du yomb ndax Walf Quotidien li mu gis moo di ni dund gu cher gi ñàkku xëyu ndaw ñi ay mbir yu tàng jip la yi nga xamante ne dina nekk lool jafe-jafe ngir nguur gi ñu daal di koy saafara yéenekaay bi dénk kàddu Souleymane Keita nga xamante ne jàngalekat la ca UCAD moom lu muy sàkku mooy ñu daal di consommer local may sababu xam-xamam màcc ci wàllub koom di jàngale ca UCAD dikk na ci li wundu projet PASTEF bi nga xamante ne dina soxla koppar gu bëri ngir ñu mën cee yegg dina jafe am déet le soleil ma nga yëgle ni moom njiitu réew mi na chrono bi ci lu jëm ci jafe-jafe askan wi ndax ci ndajeb conseil des ministres ni ki démb président Bassirou Diomaye fay sàkku na ci gouvernement am ñu daal di jeexal ni mu gën a gaawee projet de budget ñeel atum 2025 sargal na ka delloo njukkal Ousmane Sonko ci ndam li nga xamante ne am nañ ko ci élection législative yi li moo tax Vox Populi gis ni Diomaye démb dafa mel ni ku doon tàgg premier ministre Ousmane Sonko ci engagement bi nga xamante ne am na ko waaye tamit leadership bi mu wane ci biir élection yi ba tax ñu daal di koy jox majorité bu amul fenn moom njiitu réew mi rafetlu yi tamit taxawaayub askan wi ci wat wi nga xamante ne def nañ ko ci jàmm ak sa lam waaye tamit gouvernement bi rawatina administration bi ci organisation élection yi mu jàpp ni lépp jaar na ci yoon organisation élection yi ak résultat yu ca tukkee moo tax ci réew mi quotidien mu mel ni njiitu réew mi ci boppam daal dinay jox not yu mucc ayib administration constitution bu Sénégal naka doone Ousmane Sonko mi jël ndam li waaye tamit askan wi ci seen wàllu bopp yéenekaay groupe Rewmi Network bi yokk ci ni ni mu gën a gaawee daal njiitu réew mi soññ na équipe am ñu daal di samp projet de loi de finance atum gannaaw ba ñu jógee ci élection yi élection yi li mu wane yor-yor bi gis ni Pastef daal lu toll ci ñeent fukk ak juróom-ñaari département la gagné takku wàllu juróom jàmm ak njëriñ ak ànd nawle ku ci ne benn résultat yi nag lu ñu wane mooy lu ko ku dul Pastef Pastef jaxasewaat carte gi ci langu politique gi bu ñu sukkandekoo ci le témoin yéenekaay bi li mu gis mooy jamono ji tembe géewu politique gi ci boppam ku ci nekk war naa xoolaat taxawaayam ñi war a taxawal nag askan wi ca pencum ndaw réew ma source a li mu gis mooy assemblée de vétérans maanaam ñi yàgg lool ci politique lañ fa war a gisaat ku ci mel ni Amadou Mame Diop Farba Ngom ay Tall Sall ñoom ñëpp amaat nañu beneen mandat yéenekaay bi di fàttali ni kon Aïssata moom dégg honorable ñi ko dul dégg bëri lool te bokk ci coalition sàmm sa kàddu kenn ci ñoom di Thierno bokkum àdduna ci biir les échos opposant bi mel ni ku ci amee yaakaar bu tas ndax nee na lu ñu foogoon mooy am ay député yu bëri waaye ki ñu jonool muy parti au pouvoir naka noone ci beneen fànn wa tamit ñaari ancien président ñu bokk ci yëf yi moo tax mu jafe lool ci ñoom moom Thierno Bocoum mel ni ku amee tiitange ci majorité confortable bi nga xamante ne Ousmane Sonko am na ko ci assemblée nationale seen coalition moom dina wéy ngir yeneen i élection yu ñu dëgmal gannaaw élection yi mu mel ni état am na taxawaay bu bees ci entreprise de presse yi tribune yéenekaay moo xëy ci dogal bi nga xamante ne état jël na ko ngir débloquer compte bancaire yi yéenekaay bu gaan gay bi gis ni fisc bi ci boppam wàññi na pression bi nga xamante ne tegoon na ko entreprise de presse yi le quotidien di ko feelu nekkoon état ci boppam moo tàmbale teggi loxoom ci li mu xoojoon média yi ci Sénégal Sénégal def xayma ci tolluwaayu xeex bi quotidienne di yëgle ni lu ëpp junni ak juróom-ñett fukki téeméeri doomu aadama ñooy dund ak jàngoro ji ca diwaanub Kolda moo tax diwaan googe ci boppam ci zone rouge la tollu ndax lim bu takku doomu aadama yi nga xamante ne ñooy dund ak jàngoro ji way di lore fleuve Sénégal loroon askan wi dëkkee ca Bakel ak li ko wër enquête def enquête am ci ñi nga xamante ñoom ñoo loru ci kuri boobe jamono ji ñuy dund ñàkk kaaraange gu mot sëkk ci wàllu seen dund waaye tamit li ñu njort ni ma ngi leen di yot di ay xeetub jàngoro yéene kaay xam juróom-ñaari téeméeri hectare ceeb lépp yàqu na yàqeet ay junni njaboot tamit jamono ji ba tey ñoo ngay dund musiba maaba kumba musiba doon yoot Sénégal ci wàllu tali gi l'observateur mooy yëgle tey ni lu toll ci ñaar fukk ak ñeenti tonnes pneu yi nga xamante ne kon baaxul benn yoon ngir jëfandikoo moom la état teg loxo ndax bu ñu ko bàyyoon loole mën naa jur ay accident yu bari ci réew mi moo tax yéenekaay groupe Futurs Médias bi gis ni suñu réew daal mucc na ci jéye yi ko doon yoot loxo ci poste Sonatel Expresso ak Sirius Libération mi fësal xibaar bi mooy yëgle ni lii ma ngay xew gannaaw contrôle respect conformité ak tarification bi nga xamante ne dañoo gis ni entreprise yooyu liñ ci doon def dëppool ak yoon ci wàllub non conformité ak manquement à l'obligation ana kan moo war a toog ci bopp équipe nationale bu Sénégal laaj la bi réew mi sport samp niki tey ji yéenekaay bi di xam ne ni donte yeggaguñu ci taneef ba waaye ab doomu Sénégal lay doon joueuru Sénégal yi wane seen bopp ci ñaari jongante yi équipe nationale